waaw dañuy sant suñu borom bu baax bi mu ñu suturaalee ba ñu fekkawaat tey euh, màggal Touba nga xam ni événement religieux la boo xam ni sénégalais fu mu nekk ku màggal jotee xalam yëpp Touba lay daj tey nag en tant que njaboot en tant que talibé dinañ ñëw euh, naturellement ziar si mais aussi en tant que membre du gouvernement président la république dafa instruit woon membre gouvernement bi yëpp pour ku ci nekk euh, pàcc bi mu la dénk. nga góor góorlu ci ba taalibe yi li ñu li ñu bëgg ci sa secteur ak ci sa domaine nga doxale ko ni ko bëggee ci côté boobu la ñu ñun commencé woon liggéey ak waa ARTP ak waa les opérateurs de télécommunication bind leen ay lettres yëgal leen ñu wax leen ñu jël matukaay yi ci war pour que euh, service de télécommunication yi électronique mën a disponible ci Touba mais aussi mu nekk de qualité donc loolu nag euh, ñoom nee nañ def nañ ci ay jéego ay am nañu ay investissement supplémentaires yu ñu ci def ñenn ñi nee nañ doublé nañu seen bos ba 90 pour cent sax ñenn ñi nee nañ investir nañ ba 140 pour cent donc loolu lépp pour wane rek euh, niñ ko jëlee farlu biñ ci di am mais aussi xam nga màggal Touba dafay événement religieux bi nga xam ni et social bi nga xam ni moo gën a am doole ci mën naa ne ouest africaine ndax dafay regrouper ci ñeenti piste par exemple le tiers de la population sénégalaise juróom million ba juróom benn million di fi daje donc te kenn ku ci nekk soxla bi nga am ci mbiru communication électronique dafay gën a yokk ndax nit ñi bëgg nañ fu ñu nekk ci àdduna bi bëgg bëgg nañu dund màggal gi loolu nag dafay demander investissement yi war pour que quali euh, réseau bi am qualité nekk de de qualité loolu yëpp ñu def ci ay jéego ñëpp daal ci euh, dugal seen loxo moo taxoon ñu bind leen def nañ ci ay efforts yu am solo mais comme ni ko sëñ bi sëriñ bi waxee ci autour de du de la grande mosquée ci euh, dig digal li war jumaa ji li fa concentration humaine bi fa nekk day tax lu ñu fa def ci investissement doyul lu ñu fa mën a gën a yokk aussi eh, investissement pour améliorer qualité de service bi ak qualité réseau bi doyul donc loolu moo tax loolu dinañ ci gën a ñaaxaat donc opérateurs yi ñun ñëpp ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey tout à l'heure dinaa def le tour des opérateurs xool investissement yi ñu ciy def donc gën leen ñaax mais aussi ñu xool na lañ def ba gën a améliorer vraiment qualité réseau bi ndax euh, nekk euh, Màggal Touba nekk na événement boo xam ni ci Sénégal mun naa ni sax ci Afrique de l'Ouest amul bu doy ni moom te kon lim li ci war ci investissement war nañ ko ci def mais aussi ñu dem ci def investissement yoo xam dafay pérenne investissement yoo xam ni du rek màggal gee tax ñu koy def daal di demaat daal di koy démonter nañu def ay investissement yoo xam ni dafay toog rester fi ndax presque Touba chaque mois chaque semaine chaque deux jours ya benn màggal am na benn euh, événement religieux d'envergure am na kon defe naa ni opérateurs yi sax ont intérêt à renforcer leurs investissement ici donc pour une meilleure qualité de service te loolu defe naa ni ñun ñëpp ñu ngi ciy liggéey beneen bi aussi au niveau de l' état dama war a rappeler que état du Sénégal dafa investir dans le domaine du numérique tey réseau fibre optique bi nga xam ni moo am ci Sénégal ci fukki junni ak juróomi kilomètres yi juróomi juróomi junni kilomètres yi état du Sénégal moo ko moom c'est-à-dire que état du Sénégal liggéey na pour que euh, réseau élect euh, de communication élect euh, réseau télécommunication mën a disponible sur l'ensemble du territoire mais aussi euh, ci ay dëkk yu mag yu mel ni Touba macha allah luñ ci mën a def yokk connectivité bi ñu def ko loolu tamit ñu ngi ciy liggéey donc au niveau du gouvernement pour renforcer disponibilité réseau euh, de réseau fibre optique bi pour que vraiment ñu gën yokk vraiment connectivité bi ak qualité de réseau bi au